maanaam war nañu mën fexe tey jii ba ci réew mi ñu xam ni euh, le Sénégal est en danger suñ ko waxee suñ ko waxul et loolu nag lu muy waral ci ñun doomu réew mi mooy ñu jéem a waxtaan ba juboo président Macky Sall lancé na dialogue national bi nañu fexe dialogue national boobu ñu gën ko baral ñu jéem a waxtaan ci li nga xam ne mooy problème majeur yu Sénégal jéem ci juboo suñ ci jubooyee incha allahu rabbi ñu jëm seet ñi nga xam ne mën nañu ànd pour àndandoo yore réew mi ci euh, fu président Macky Sall ñu def ko maanaam taxawal un gouvernement d'union nationale def naa jot na tey ji voilà suñ ko defee moo war suñ ko deful moo war waaw crise malienne bi enseignement boobu bi ci gën a ngand bu ma tiré en fait moom mooy loolu suñu defee gouvernement d'union nationale mooy li war suñ ko deful mooy li war non non voilà voilà voilà voilà donc euh, defe naa ne daal loolu mooy le principal enseignement nañu accélérer le dialogue national le dialogue politique réew euh, ñaar a koy def pouvoir opposition pouvoir bu corrompu pouvoir bu jaarul yoon bu gabégique et cetera mën na yàq réew mais aussi opposition bu dof opposition boo xam ne dafa naan eh, fu ma toll naay taal daay naal taay daay bu yàggee dan ñoom seen bopp daan tàkk tey jii gis ngeen situation bi am ci kii ana imam Dicko ana waa M5 kenn déggatu leen ñoom seen bopp xamatuñ ci luñ nekk nit léeg-léeg dana daas paaka ba kay rendi kon nag il waxtu waxtu yu jot na nit ñi def preuve de responsabilité dans les différent pays africains Mali li fa am xëy na IBK ak nguuram am nañ ci responsabilité waaye defe naa ni aussi opposition malien toute opposition confondue am nañ ci une responsabilité voilà defe naa loolu daal moom lay mooy enseignement principal bi ma bi ma tiré ñun nag Sénégal nañ ci nañ ci am maandute nañ ci am taxawaay boo xam ni xëy na ñu gis ni ñu nag ñeneen ñi xëy na ñu ngi bokk ñun ñëpp CEDEAO waaye nag euh, su Mali yàqoo ni muy gën a dal ci Sénégal mooy ëpp ni muy dale ci yeneen réew yi waaw te nag comme ni ñuy waxee les états n'ont pas ont des amis certes mais surtout seen ay intérêt moo leen di doxloo kooku kooku ñu bañ ko fàtte voilà nañuy xëpp ndox daal di jëm juboo di fexee lu gën taxawal Mali ba nga xam ni li ñuy ragal yëpp ci Mali et du ko dal parce que bu ko dalee euh, dafa mel na ci benn biir kër rek voilà la dal ci benn néeg euh, ci benn biir kër la Eh, Mali nag benn eh, maanaam boo jëlee benn kër muy Sénégal ak Mali eh, xëy na ñaari néeg la benn néeg mooy Sénégal mooy Mali benn néeg bi nag amee ay jafe-jafe bu ñu yaakaar ne du agsi ci beneen néeg bi waaye nañu fexe ba fay loolu jëm ko kii ak yooyu et di ñaan yàlla yal na yàlla def nit ñi dellu ci seen sago jàmm ak salaam am fii surtout que jamono Covid bi ñu nekk nga xam ne aussi gën na yokk jafe-jafe réew yi. donc euh, dépense yi nga xam ne sax dafa obligatoire ñu defaroon ko def pour armée waroon ko def pour yeneen couche ak population yi gën na jafe parce que recettes yi wàcc na et cetera cetera donc jamono musiba ak balaa daal la ñu nekk donc euh, lu ñu aussi sababu sababu war nañu bàyyi xel ni yàlla mooy suñu borom te war nañ ko di di di bàyyi xel di ko ñaan di jublu ci li ma santaane di bàyyi incha allah li mu teel